ñaari fan des ngir ñu amal élection yi central syndicat yi nekk ci réglage yu mujj yi looloo waral ba tey coordination nationale des travailleurs du Sénégal force du changement jën na woon ak taskatu xibaar yi di xam ne nii daanaka lépp yemb na gannaaw bu ñu wëree Sénégal ba noppi. gis nañu ne syndicat bu nekk ci biir synthèse force du changement non seulement am nga sa programme bokk di ko dox te synthèse FC dugalu ci loxoom. waaye fekk si nga délégation nationale bi ci liggéey bi ñu doon liggéey liggéey boobu nag dañ ci rafetlu taxawaayu camarades yi nga xam ne ñoo àndoon ak man ci délégation nationale bu moom mi la nag xamle na ni élection yi ci terrain bi la ñu koy gañee looloo tax muy woo travail yëpp ci mobilisation synthèse force dafa càmbar situation mouvement syndical parce que mouvement syndical boo ko seetloo dialogue social buy doxee bopp la te xam ngeen loolu jëmul kër da ngay am da ngay négocier waxtaan ba am accord ñu ne duñ ko def loolu yàpp mouvement syndical passé wu ko te li tax ñu yàpp ñu mooy li ma wax sànq mouvement bi dafa xàjjaloo ba syndicat yi kenn xamul nuñ toll. su dee yenn leaders yi am nañu si ràññeeku lool moom Cheikh Diop li mu xamle nii mooy nekkul leen ci concurrence te li mu gëm mooy liggéey rek mooy tax ñu gagné. dañoo jàpp ne nit ñi liggéey bi ñu liggéey explication ñu def. liggéeykat yi ñun lañ yaakaar kon ba tax na fas nañ yéene bu ñu liggéeykat yi joxee seen kàddu ba ñu nekk première centrale bu Sénégal xeetu dialogue social bi dinañ ko soppi waaye dinañ xar suñ tànk tubéy ci dajalewaat mouvement syndical jox ko doole parce que suñ ko deful adduna dina tukki ndax jamono jii ñu nekk liggéey bi xëy mi ci boppam moo wóoratul élection yi nara am fukki fan ak ñaar ci weeru décembre bi département dakaar am lu tolloog ñaar téeméeri bureau de vote ak fanweer ak benn